dellusiwaat eh, di leen eh, gërëm bu baax di am mbégte teewaat ci ndimbalu suñu borom ak kattanam di sant yàlla bu baax ànd ak yéen eh, ci 30 minutes chrono comme ni ñu koy defee alxamis june tey jii nag ñu dellu si ci actualité bi mu doon actualité bu riche boo xam ne xam na ni xajul ci 30 minutes waaye dinañ ci for aslëf fësal na leen ko eggee di gërëm ñëpp di sant El Hadj Modou Diouf Abdou ak Ablaye ñu fas yéene nag dikk ci li fi xew ci actualité ñeel le président de la république Macky sàll mu mel ni ki féete nowel mooy jàpp vingt quatre ñiy jàpp trente ak lu ci mënti am rek moom président Macky Sall moom dina dem li waaja doon wax naan nag ki lijjanti yaa ngay lëjal waaye Macky Sall la mu doon lijjanti moom moo ca mujjal la mujj caa daanu comme la ma doon wax rek bari pexe jub moo ko gën malgré pexe malgré njuuj njaaj malgré lépp ak jeu bi muy joué jeu boobu yëpp da ca mujj daanu dafa am lu benn kilifa doon wax naan booy wër ku muusul da ngay fekk ki jàpp ni moo gën a muus ñëpp rek nga jàpp ni kooku muusul parce que bu muusoon dina xam ne gënuta muus ñëpp ndaxte fu sa intelligence toll foofu la intelligence ñeneen ñi di tàmbalee dama koy faral di wax naan ñu dénk la réew nga fekk ni yow yaa ko moom waaw nguur gu dëgër day war a fekk nga bëgg sa réew Macky ñaar yooyu yëpp da ko dal dañ ko dénk réew mu dem ba foog ni moom moom moom réew mi te wolof fi naan baadoolu bu jibee gàcce fekk tàbbi ci du am jàmm tey jii li dal président Macky sàll ak datu élection yi bu ko kenn jiñ kenn nan jàpp ni Macky sàll moo def ay pexeem di def ay mbiram di lijjanti di lëjal ba teqatalu li nag bettul képp ku am seetlu képp ku am seetlu ci réew mi bettu la ndaxte bu ne Macky sàll na Farba Ngom waaw parce que des fois nit ki wax ma ki nga doon moo wax la yow yaay kan mais wax ma ñi ngay àndal moo wax la yow yaay kan nga xool niveau wu ay Farba Ngom niveau ay Farba Ngom ñu ne Farba moo gën a jege makki sàll ci Sénégal non c'est grave ñu ne Macky sàll ñoom ñooy xaraate xalitam ñun la ay Moustapha Diakhaté des fois il faut oser ñu ne Macky sàll kan mooy journaliste am ñu ne ma Madiambal Diagne ñu ne Macky sàll ñañ lay bàyyi xel ñu ne ay Cheikh Yérim Seck ngay lim du jeex du jeex ñu ne la APR ñun la ay Ahmed Suzanne Camara maanaam ñu wa ñun la ñan ñooy Macky quoi maanaam bu doon jëmmi Macky mais li tax Macky dugg ci guta bu la waxee ñi mu àndal yow da ngay gëm ni Macky sàll lii ko dal tey jii mënu koon ñàkk dal parce que ñi muy àndal ñi xam ñooñu booy wax état ba tudd ñi ma tudd nii doo wax état parce que damay joxe Cheikh Yérim boo waxee ñu la jàng na mais moo ma jambal jàng na mais seen jàng lan la mooy fexe ba képp ku Macky Sall mën a am ku baax ci réew mi ñu fexe ba taxalikoog Macky Sall ñi gën ci réew mi bàyyi nañ Macky ñi gën ci réew mi bàyyi nañ Macky Sall Macky Sall bi muy njëkk a jot nguur da ngay xool ay Amadou Kane ay expert international yoo xam ne tey jii ñi ngi woon fii ci réew mi ñoo bàyyi woon seen lépp ñëw ànd ak président Macky Sall mais bi ñu defee at ci pale bi dama woon ginnaaw Macky Sall ay am Sow di ay professeur Malick Ndiaye ndem si yàlla gi. di nga bi mu génnee dafa am benn livre bi mu bindoon mu ne où va la république fan la Sénégal jëm loolu tax di nga les intellectuels la il faut que ñu leen di bàyyi xel di li xew nii di nga livre Malick Ndiaye boobu yu bari waxoon na ko ci mooy ethnicisation bi république bi ñuy fooye jël ay médiocre teg lañ ci pale bi te loolu li koy indi mooy nga dem ba jàpp ni nit warulaa wax dëgg nga dem ba jàpp ni nit warulaa jege ëpp la xam-xam Macky dafa dem ba mel ne bëggatul borom xam-xam maanaam ku mel ne Ismaïla Madior Fall bi mu ñëwee nekk ministre de la justice moom Madior Fall dafa jël lépp lu mu jàngal ci wàllu yoon mu ne waxatuma ci wàllu yoon dem na bay interpréter constitution bi jël constitution wu réew mi laa la wax Fall moom Ismaïla Madior ne mbiri candidature Macky Sall mbirum politique la bu nu amee deux millions yoo xam ne signal nañu rek pétition Macky mën na am troisième mandat quoi ci koo xam ne yow dem na yow yaay constitutionnaliste bu gëm a gën a émérite ci réew mi non loolu c'est grave mais kooku nan lay wëree Macky Sall di ko jariñ dara mii contumace di mbiri Sonko bari na ci loo xam ne Madior Fall moo ko la jël la ma doon wax bu toogee ci télé bii tudd Madior bu toogee fii ne Ismaïla comment le président de de la République Macky Sall peut s'entourer des gens comme Ismaïla Madior Fall maanaam moom bi nga koy jël di ko teg ci sa wet mbiri xam-xam ak yoon parce que bi lay jël major Fall politiquement il n'existe pas à Tëngéej à du fa dara kon tey ji bu mënul jariñ ñu sàll ci wàllu xam-xam Madior Fall ban njariñ la amal Macky Sall chronique bi il faut il faut ñu xam lu tax Macky egsi ci niveau bi yàlla dogal mu dem jëli Antoine jom tey jii ñi ngi wax ci ay amnistie ay nit yu ñu faat ay bis ba lakkoon ca yaraax ak cocktail mën a foofu mais Macky Sall dem jël ab procureur mu jaawale ministère bi ñu ko denk ak tribunal dama mësa laaj benn xaritu Antoine Diome booy yi mooy booy yi ko toppoon rek di ko jaay booy bi ma ni ko Antoine ni muy doxale nii est-ce ngi wax ak moom parce que bi Antoine di nekk ministre de l'intérieur mais li xew ci réew mi yëpp ci la xew ah imaginel Antoine bi mu nekk ministre ba li mu fi jóge li dee ci réew mi mës ta dee ci ay manifestation liñ jàpp ci réew mi kenn mësul leen a jàpp moom Ismaïla Madior parce que cooli cooli intérieur la ak justice intérieur mooy jàpp justice mooy tëj mais ñooñu ban njariñ lañ amaloon le président de la république Macky Sall waaye ñoo ñooñu te dëgg surtout Antoine Diome lu xew mu ñëw Antoine jom ñi ngi wax ji nga ñu bari ñi ngi naan ay bis ba nu sànni woon xeer ca yaraax ak sànni a Molotov lu tax ñu bari di dute ci bis bi mooy Antoine dafa ñëw mbir mi ne cëpp na lay rek presque Antoine moo fa jiitu lan moo ko yëgaloon ni loolu day xew ba mu jiitu fa bi mu fa jiitoo moom Antoine waxul woon ak ay journaliste waa police ñoo ko dékk seen micro communication police Antoine di wax chauffeur bi nekk ci wetam bi chauffeur bi nekkee ci wetam Antoine ne lii acte terroriste la wax ay mbiri terroriste wax ay bomb mais nan la mbiri mu mënee am xanaa déjà bu ne ab oto sànni nañ fa bomb affaire terrorisme la mais bu ñëwee xanaa dina am ceinture de sécurité ceinture de sécurité déjà sapeur pompier dina ñëw police scientifique dina ñëw xool qu'est-ce qui s'est vraiment passé mais ñu def sax constat pour voir mais avant constat avant dara avant la présence des sapeurs pompiers avant personne Antoine ñëw na tut jël mbiri def ko ak terroriste ñu fekk nit ñi seen biir kër di leen jàpp maanaam ku def ak ku deful ku takk bracelet Pastef ak maanaam ku far Pastef ak ku farul seen yoon nekku ci Antoine di jàpp rek jamono bi ñuy jàpp ñoom ab Abdoulaye Touré di leen yóbbu di leen duma ñi jàpp Pape Abdoulaye Touré torturé ko lan waroon jàpp ñu gis ab booy bi jaay portable nu taal place am Antoine bàyyi fi xale yi dee ak ñi gaañu yàqule dem di masowu ab jaaykatu portable quoi maa ngi fàttaliku bi Juan Branco coow lu Juan Branco am Sénégal Antoine moo ko may ab avocat di un métier libéral jóge bitim réew ñëw war def liggéeyam ñu bloqué ko loolu moo indi coowal Juan Branco te lépp cuune Antoine la dugal Macky Sall ci lu kenn xamul Macky Sall tam nangu ko parce que Macky Sall aussi paraît-il ñi ko jege nee na Macky Sall du ku ñuy wax dëgg du ku ñuy wax jaaral fii Macky Sall lu mu bëgg la xam ak ku ko jay ñu xëy taxaw tas naan parti Pastef tas naan parti bi tëj nañ Ousmane ko jàpp nañ ko maanaam. Antoine maanaam le régime de Macky Sall c'est le régime de tous les excès ëppal y a pas de retenue y a pas de mesure telli telli Antoine Diome dugg télé bu ne mu toog rajo bu ne lu ñëw mën a terroriste ci nga coowal terroriste yi ñuy wax même Macky Sall bu nekkee ki mu doon ñoo ko doon dimbali ji nga kilifa boo ko jegee da koy dimbali Macky Sall lu mësuñu ko wax dëgg mësuñu ko wax fi mu jëm tey jii ñun ñu doon wax xamoon na ni mag Sall day mbëkki miir bi mu savait que fii lay mujj senegale yi dem ba du xamati fu mu jëm nekk ci course contre la montre tey jii mi ngi ci contre à rebours dem ba lépp rëcc ko ni ko Cheikh Baar doon waxee yokk yoratul paaka bi waaye mbar mi la dese tey jii yoratu tax mbar mi. quelqu'un qui disait que je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression tey ci il s'est réduit te njëkkewul tey le président de la république Macky Sall bi mu faloo ba deux mille douze deux mille treize deux mille quatorze rek réforme des institutions la indi dénk Amadou Makhtar Mbow ay ñoom professeur Moussa Mbaye ay kilifa ñu waral ko réew mi at ñëw ne ko réew mi fi leen bëgg mu jëm parce que réew mi amul problème dara institution yi lan war a dëgëral Macky Sall ñëw ne lu ma neex laa ci tànn te boobu ay Cissé ay Abdou Mbow yi ñoo doon wax naan président kenn du ko digal li muy def kenn du ko digal li muy def maanaam Macky Sall toll ci di dégg lu ko neex rek du nangoo dégg dëgg maanaam lu ko neex rek mais du nangoo dégg dëgg dem maa ngi koy wax bëgg dégg dëgg ak bëgg a dégg li la neex bokkul. bokkul Ousmane Sonko jàpp tëj comment dans un état sérieux la police ak gendarmerie di jàpp ay nit di jàpp di jàpp ban mat ay mille personnes am na ci loo xam ne tey jii ñu ngi wax ay amnistie ay ñoom mais am loo xam ne mënoon nañ ko régler bu yàgg garde à vue lay doon balaa garde à vue bi jeex ñu baax parce que ñun ñëpp dund nañ ay manifestation politique mais bi amul bu ci daan egg ci loxoy procureur nga am une justice aux ordres aussi maanaam politique yi dem ba yóbbaale justice bi ci njombe yi ñuy def maanaam dem ba yóbbaale leen ci police bi aussi doon une police boo xam ne da nga doo xam ne dañuy politique am déet parce que mille jeunes ñëpp mënuñu bokk def même erreur bi ñëpp ñu bokk dem kaso. bu ñëwee ci justice bi procureur yi jàllale le juge non des fois ñu wax le juge Mamadou Seck di ni nii comment un juge peut accepter huit cent jeunes nga yëpp nga jàllale mais aussi daam loo xam ne bu ñëwee ba yegg si sa loxo mais war nga taxaw. ne mais lii <laughs> lii am na fu mu jëm parce que gars lii li def ñoo ko tey xam ñi ngi naan ay juge Mamadou Seck juge Mamadou Seck est-ce que xam nga dossier Ousmane Sonko Adji Sarr avant ñu koy jox Samba saar ci loo xam nañ ko jëkk a teg mu bañ ah yaboo Ousmane Sonko mais yab nga booyi quoi nan ma baal nga am un juge ma xam jàll ñëw taxaw Ousmane Sonko dem bay traité Ousmane Sonko psychopathe pour lan neexal Macky Sall quoi parce que Macky lu ko neex la ji nga àddina nit ñi mën na la wër say xarit nga yor milliards yor nguur yor yëpp am ñu lay jaay mais des fois booy recruter dangay ngay recruter ku la faalewul buur buur dafa soxla loolu ut ku la faalewul mais Macky Sall da ko amul Macky Sall da ko amul kenn la ci amoon ku ma xam mooy maître Alioune Badara Cissé wala Moustapha Cissé loo on peut tout dire mais am na fu mu doon toll mais Moustapha Cissé Lo bi mu demee ba am yenn engagement yi di wax yenn wax yi mais ba Ngom lañu indi far Farba Ngom recrutement bi ñu ko recruter c'est juste pour écarter woon Cissé Lo c'était juste ça Alioune Badara Cissé dem ba mënatul jot ci président ñu del ko def ko médiateur mu doon médiateur bu am jom lu réew mi soxla mu taxaw ci mais dem na ba mënatul gis sax la président Macky Sall. c'est ça léegi ñu bàyyee la ay nit ñoo xam ne mais xamuñu dara il faut se dire la vérité bi ñuy fal le président maanaam Macky Sall bi muy def gouvernement bi dafa am sam benn xarit bu nekk en Italie yàlla dafa dogal mu ñibbisi ñu toog du ma tudd turam mais ku yàgg ci tubaab bi la ko gouvernement bi daanu mu ma Omar euh, mooy bi ñuy wax gouvernement de combat et d'attaque mu ne ma Omar Njombe am na de mu ne la mu ne ma ñeenti ministre ngi nii ku bëgg a liggéey doo doo leen tànn ma ne ko kan te nee na mu ne ma bis dina ñëw bari naa ay erreurs yi xew ci réew mi di nga leen ci dégg parce que benn préparé wul lañ pour ñu nekk ministre amuñu xam-xam mais li leen di doy foo mu jënee Sénégal baaxul man ko yéen ministre mu musaa ma Moussa am Thiam billaahi moo xam loolu mun a Macky bu dee ñii lay àndal pour am dara ci réew mi moom du sori man ko lu tax mu am yu ma wax waxtaan naa ci ak beneen kilifa bu nekk bitim réew moo tax di sama xarit mun a Moussa Bokar day jàpp jaawale communication ak plaidoirie yi quand il parle il parle comme un avocat boo nekk ci kii tribunal mais c'est un mauvais ministre de communication bi may wax loolu dara xewul xool leen mooy ministre communication bu ñëw di tëj internet tëj rajo nangu licence di def une communication désastreuse boo xam ne doo xam waa ji lu muy wax mbir mbay mun a yi rek wax na ci njombe yoo xam ne kenn xam yow nga tëj fi wàllu fajiri tëj fi internet dem banaan journaliste bu am carte presse bu ko amul yow tey yaay mbir mbay mun a ne cëpp na lay mun a non dinañ ko enquête dinañ ko leer ñu les agresseurs on va les arrêter moom day ministre de la ministre de la communication mën nga ñëw compatir avec la presse teg ci il faut que ñu respecter la liberté d'expression Moussa Bokar tey lay doog a xam ni danoo war respecter liberté d'expression beneen bi mu ni ma Pape Malick Ndour waa jee may wax de ki may wax nii ku am xam-xam la mun a fal nañ ko ministre mun a seetlul dina fi def ay njombe mun a parce que warul doon ministre xoolal mbiri Pape Abdoulaye ñu ngi ko ciy tudd ak la mu defoon ca këru Sonko dem di mobiliser lu mu dugg ci tey jii noppi na parce que affaire yaa ngi jeex Pape malik tey boo gisee dafa mel ndox mu sedd guy man bi mu koy xam yàgg na xam naa ko yàgg mu yar woon daal tey mais nguur day dofloo nit yàlla dogal mënu ma Mame Mbaye Niang mënu koy fal ministre mais ci ay njombe lañ jëm waa jëm wax loolu de xoolal fi mujj affaire Prodac Adji Sarr ak yenn yu bari beneen am na beneen ministre bi mu wax mun ne Abdou Karim Fofana Abdou Karim moom patron Macky moo njëkk wax ñu ni moo mënul communiquer xamul dara te bis bu ne mu prouver ñu ko tey jii lu tax ma dellu siwaat ci lii parce que mbir bu amee il faut ñu delluwaat ca yuq ba xool lan moo waral lii mu dem ba tey jii Macky nekk un homme esselé isolé te loolu li ko yóbbee mais boppam parce que ba muy tànn tànnul ay liggéeykat ay xeexkat la tànn imagine un président de la république former un gouvernement mu ne un gouvernement de combat et d'attaque koy combattre koy attaque Ousmane Sonko tey fan nga mujjee ak Ousmane Sonko di xool léegi nan ngay def ba génnee ko ci kaso bi quoi kon xeex bu mu doon xeexu Ousmane Sonko ban njëriñ la am pendant douze ans après Khalifa après Karim Sonko loo ci gagné parce que bi lay fal faluñu la pour ngay xeex nit pour ngay lii pour waajal sa bopp dañ la xeexaloon pour nga may jàmm Sénégal dimbaleen seen jàmm ji ngay wootee mais boo ko njëkkee woon mais duñ toll fii pour pourtant ñun ñi la ko doon wax mais da nga jàppoon seen noon la wala doonoo far fii ak fee. Alioune Badara Cissé mus na la ko wax dem si yàlla gi mooy yeewul balaa minuit billaahi baat boobu la ko waxoon tey jii ñi la dugal ci gute yi yépp amulul la benn njariñ tu es au front te pourtant kenn du na liggéeyoo fi dara ah terre kenn du na baaxul ah infrastructure yi kenn du na baaxul Puma kenn du na baaxul PDC kenn du na baaxul ñun du nekk ay nullis jam ñaajo nga bëgg nga bañ mën nga ni baax na wala baaxul mais def na ko ak yeneen ak yeneen quoi bu nee sens bu neexee ñu ne yi am na ko parce que boo xoolee ngu mooy waral ay gaaf. sur le plan sportif ak yeneen ak yeneen ay xéwal quoi pétrole bi feeñ yooyu yëpp la neex nga bàkkoo ko mais da nga kaa yàq na xeex parce que te xeex bi yàgg na ci yow yàgg na réduire l'opposition à sa plus simple expression àddina da ngay sóoraal lu ñëwagul bi ngay reporter élection PDS ma nga doon xeex après ñoom nga tàllal loxo pour régler sa problème parce que bëggoon nga reporter élection yi loolu àddina looy xeex-xeex del suuraale juboo bi benn moment bi nga soxlaa sa dialogue njabootu xalifa Sall ñoo doon jàppale la nga dialogue dem bi nga soxlaa sa loi si pour setal say bopp setal say mbokk mais soxla woon nga Pastef soxla woon nga Ousmane Sonko. parce que dem nga ba réalité dab la parce que jéem nga jéem jéem jéem ba sonn xam na nag lii nag mooy réalité bi te rek président kenn ëpp la information loo dem nag si yow rek yaa am droit am grâce yooyu yëpp yaa am droit boo demee ba ne nan ko gaaw def balaa élection parce que boo ko deful woon nit falu def ko génnee booy yi bàyyi Ousmane Sonko nga dinaa ko def waaye yóbbaale géew sama bopp c'est malheureux pour un président de la république boo xam ne tey jii dem na ba ay décision am ñu koy contester dem ba kilifa ñu lay yedd ci mbooloo yedd c'est ça parce que bu dee nii président dafa jël dogal ne day pousse élection bi ba le 2 juin le conseil constitutionnel delloowaat ko kàddu gi. pour ormal ko ormal ko pour mu tànn date date le président tànnul date dem defi dialogue boo xam ne moom ak groupe Mbabor xam ngeen yéen fàlle waa groupe mbaboor mooy paa yoo doon ànd doon Mbabor ci ca mais dialogue bu mel ne waa groupe Mbabor ñoo daje ku ne di wax lu ko ne alors ko groupe Mbabor sax daan nañ wax li jañ réew mi topp la di la jaay ngay aji mbag lu ne nga dugg ci tey ji loolu fan la ñu yóbbu tey mooy si situation bi nga nekk kenn yéenewu la ko mais ñëpp xamoon nañu fa nga jëm parce que bis bi yi di pousse élection yi dama waxtaan ak benn kilifa mën naa ko tudd le professeur Babacar Gueye constitutionnaliste dama ko woo ma ko man ko décision bi Macky Sall jël ci ni day pousse élection yi parce que dafa am commission d'enquête parlementaire ay corruption ak ñoomin seen mu ni ma bis bu jëlee décision ne day pousse élection yi dina dugal Sénégal ci lu mu xamul mais moom dina dugg saxlu ci lu mu xamul ma ni ko ci nan góor gi li muy bari bari xam-xam daf na mën xaw ma parce que bu bu dee élection moom amul le vingt cinq février dañuy dugg ci lu kenn xamul parce que musuñu ko dund mais Macky itam dina dugg ci loo xam ne dina ci bëgg a génn sax mu tëgg ko c'est le ki qui bee dit ça invité naa ko fi mais ni professeur xamee loolu mais constitutionnaliste yi wër Macky Sall xamuñu woon loolu comment le président de la République le gardien de la constitution mën a accepter ay xuusman ñàpp PDS tappalekat yoo xam ne gëmuñu tous Karim di nekk fee di manipuler nga mën ci sukkandiku di tuumaal conseil constitutionnel naan day def enquête nga am sa première ministre aussi nga mën ko dugal ci loolu yow mbër mi da nga ne moom moo may dem bëre jël pour ma daan mbër moomu di dem làmb ja nga ne ko non damay tekki sa ngemb c'est ça le président de la république Macky Sall ku bëre ak ñëpp daanu ku xeex ak ñëpp bëri noon tey jii ñi ngi ci benn situation boo xam ne du duñ ko jiñ kenn Macky kasa la Macky kasa la Macky rek la. yi dong la te kilifa gi da daan wax naan maa ko sañ man dong maa ko mën man dong maa ko xam man dong foo déggee kilifa di ko bàkkoo am na la ci kilifa ga teg ne na jàppal ni am na lu des ci moom mais mag yi dafa jàppoon ni sañ na lépp mën na lépp dem demoon na ba jàpp ni conseil constitutionnel li fi amoon moo fi amaat loo wax ñu ne incompétent pour man yi mu doon joué yëpp yooyu la parce que ñu bari jàppoon na ni Badio Camara xaritam la mais Baya Camara rek compté wul teg ci orgueil conseil constitutionnel la Macky laal mooy ñu jiñ leen corruption ay juges yoo xam ne c'est des retraités dara desewu leen ci réew mi lu dul waay bu rafet ay nit di leen gàkkal Macky di ci mel na ku ci ànd ah mais ñooñu yi dafa jot seen jikko moo tax ñoom ñu wan ko seen jikko wan ko ni en matière d'élection mën na la jeex njëkk mën na la jox tër dans lay meilleurs dele tànnal date mais boo ko mënul mën nañ ko boo ko mënul mën nañ ko tey tey jii foofu lañ toll le 24 le 31 ak bu ci mënti am li fi des mooy convoquer le collège électoral ñu dem ci élection ku mën sa mënum duna ku ñaane sa ndono sa deewin day ñaaw loolu la olof wax te tey jii situation boobu la ñu nekk mooy mag yi def na ay pexe pour iñaane ndonom mais tey lan moo la la ko jural di nga buur yàllaa koy sàkk mais buur du sàkk njiit mën nga góorgóorlu ba falu waaye diw may remplacer bariwul ay ngóor yu koy réussir ci àddina tey jii kàrtam yépp takk na ci ay loxoom la carte Amadou Ba tey mooy dem bu dee élection le 26 wala le 31 Amadou Ba mooy dem élection Ba mooy dem élection bizarrement te tey jii jiñ nañ ko corruption yàq nañ ko jëlee nañ ko primature mais ñaaw na ba noppi mais day gën a ñaaw nooy gën a ñaaw que ce soit Jomaay Fay bu ko do bu dee da nga koy xep te Jomaay a ngi ni bu demee élection mooy doon candidat daam yoo du mbiru nit nguur suñu borom moo koy dénk ku ko neex mais ay Cheikh Yérim Seck nguur kenn du ko dénkaane nguur kenn du ko saraxe nguur kenn du ko sànni no yooyu yooyu waxi nit la fokk ñi ëpp xam-xam ci réew mi les universitaires nga def loon ay noon topp ay nit yu lay jaay yaa fi yaa fi ëpp doole moytu leen gaynde guy nalaw foo taxaw tëkku sa réew lii lay jur Macky dafa dem ba joteeg ñëpp tey ji mi ngi toll ci def am si pour ñu baal ma sàmba pour ñu baal ma dem pour mu xool na lay génnee par la grande porte mais fenêtre bi sax du ci jaar peut-être ci trou yi li benn kilifa waxoon trou de souris yi peut-être ci lay jaar yéen wun ko woon ko ko nga dem ba communauté internationale bi la doon dalal ak la presse internationale ñëpp wan la ginnaaw ñëpp wan la ginnaaw ñëpp wan ginnaaw dem ba sëriñ si xam ne kersa rek la ñuy am parce que sëriñ si danoo am war ma mais lu bari ànd ñu jóg yow jàmm ji nga mujjee ak ñun boo ko njëkkee woon ak ñun mais duñ toll fii parce que il fallait que nga am loi si pour mën a def say pexe te yàlla yàlla mooy yàlla du nit dem ne si bëgg na ko jàllale gëm gëmloo na nit ñi ni élection yi mën nañ ñëw mën na reprendre le processus gars yi gëm loolu jàppoon ni Sonko mën la bokk mais malheureusement piège bi leen tendre waa Pastef yi daanu wuñ ci parce que moom xam na ni. mbiram ñaaw na ba noppi mais dafa bëggoon mu ñaaw maanaam pour que sikkee sikkaale Ousmane Sonko loolu la bëggoon fu ko sikkee sikkaale Pastef fu ko sëkkee parce que dama ko mos a wax benn kilifa dama ne ko maytu leen Macky Sall mu ni ma lu tax man ko Macky dina dem li may wax nii yàgg na de ci coowal aji saaril dina dem mais dafa bëgg yóbbaale ñu bari maanaam ndab li man xam naa ne jeex na duma ci lekkati mais dinaa foxe ba diw du ci sukkati du du ci sukkati du du ci sukkati te benn responsable PDS mag daf ma ko mos a wax daf mos a wax Omar est-ce que xam nga ni Karim Wade Mimi Touré ak euh, Sonko duñ bokk ci yi man nga loolu mun a mag yi du mës a génn réew mi di di ko bàyyee ñooñu mu wax ma loolu. mun a ba ci xalifa Sall même bu ko mënul tee bokk dina ko yàqal ba sénégal yi duñ ko wóolu duñ ko dénk mais malheureusement boobu soorul ñi fi ne. sóorul Jomaay sóorul le le candidat du PUR Aliou Mamadou Dia sóorul keneen am loo xam ne yaa ko yor mais il ne faut pas insulter l'avenir météo politique kenn du ko def li xew ëllëg on ne sait pas. mi ngi noonu di gërëm El Hadj Modou Diouf am benn kilifa baat bi ma dénkoon bi ñu nee reporté nañ élection yi dafa na ma ki war a doon président Sénégal moo pareegul. bis bu waajee ba pare rek Macky dina dem bàyyi ko mu toog mun a mbir mi du mbiram mbiru suñu borom la lii yëpp boo gisee ñu dellusiwaat ci tudd ci ay tur tudd ci ay nit parce que ñu bari buñ analyser Macky rek ci moment bi dañuy juum mais nan xool mbir yi fël la jóge moo tax ñu defaat Sénégal delluwaat fu sori pour xam ne Macky fii rek la mënoon mujj ak sénégalais yi léegi nag na dem ci jàmm bàyyi ci jàmm El Hadj Modou Diouf Abdou Top ak ablaay ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant Omar bun Xataab Gueye moo ci dana ak yéen di jégalu ñëpp di baalu a ñëpp ba beneen yoon incha allah dina fekk ci koor gi kon ñu naan leen rek koor jàmm